والقلم وما يسطرون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah C3S compagnie Serigne Sénégal gannaaw ba mu leen masawo ci mbas mi di covid 19 mu ngi rafetlu taxawaayu njiitu réew mi ak waa kër docteur yi ci wàll wi gannaaw loolu mu ngi leen di xamal ne lu jëm ci concours bi muy amal at mu nekk tudde ko yaatal mbindum alxuraan gannaaw ba mu amalee xaaj bu njëkk bi ñaar fukki fan ci weeru février 2020 ak ñaareelu xaaj bi fukki fan ak ñaar ci weeru mars 2020 mu desoon cérémonie a amal fukki fan ci mai le 10 mai 2020 ca CICES ngir joxe neexalu candidat yi jiitu ci bi mu ngi leen di yëgal dakkal na boobule cérémonie ngir sàmmonteeg dogalu njiitu réew mi di tere lépp lu xeetoog ndaje ci réew mi ngir wéyal li mu sàmmonte woon ak ndongo daara yi jiitu ci jongante bi jàppale leen ci tolluwaayu réew mi jury bi dina joxe résultat yi en direct ci télévision yi rajo yi ak réseaux sociaux yi dimanche fukki fan ci weeru mai 2020 bu 17h jotee lu jëm ci jàngoro s sàkku na ci mboolem ñaar fukki candidat finaliste yi ku nekk ci ñoom jàng benn kaamiru alxuraan ca daara ñaan sunu borom jële fi mbas mi ci barke alxuraanul karim c 3 mi leen di xamal soppeekuwul ci neexal yi ki jiitu ci góor ñi dina am million millions de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 ñetteel ba 5 millions bu dee ci jigéen ñi ki jiitu dina am 1 million 500 ka ca topp 1 million ñetteel ba 500 000 francs fukk ak ñeenti candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 000 francs CFA c gannaaw ñaan yi mu ngi leen di fàttaliwaat ñu gën a sàmmonte ak ndigalu kër docteur yi ngir mën a daan mbas mi ci lu gaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi bi ni'mati rabbika bi majnun